jëwriñ ji yor wàllum biir réew mi ànd ak ñeent ci ay collègue am ñoo xam ni ay ministre lañ ne moom ci gouvernement bi samedi ci ngoon gi ñëwoon nañ Touba Antoine Félix Abdoulaye Diome ak délégation gouvernement bi nga xam ni moo ko jiitee dalaloon na leen xalif général des Mourides gannaaw ba benn pàcc ca marché Ocass Touba lakke ki nga xam ni moom mooy ministre de l'intérieur yoroon bataaxal bu bàyyeeko ci njiitu réew mi ñëw na itamit ak ndàmpaay goo xam ni juróom fukki million la ngir ñi nga xam ni dañoo lakkale ak it benn naal ngir yeesal marché Ocass bu Touba. sëriñ bi yoonu tey wi président daf ñu yebal ni ñu bu ñu ñëwee nañ ko jottali sa ziyaara jottali ko sa nuyoo masawu ci li nga xamante ni jot na fi xew fan yi ñu génn mu nekk lu metti ndax li nga xamante ni jot na ko ci xibaar mooy ginnaaw bu ñu xaymaa li nga xamante ni moo fi yàqu ba noppi ak euh, indi tamit euh, suñu masaw jëmale ko ci ñi nga xamante ni mooy sa njaboot euh, yàqule am lu mu leen jot a dàmp tuuti li ci des nag mu jublu ci defar marché bi. ci ba muy tontu kàddu yi nga xam ni ministre de l'intérieur bu yees bi yëkkati na ko xalif général des mourides yëkkati na kàddoom ci làkk gi nga xam ni moo am marché Ocass bu Touba jaarale ko ci kàddu porte parole am. sëriñ bi nee na. ginnaaw bi mu masawoo ñi nga xam ni. ginnaaw bi mu masawoo ñi nga xam ne. ñoo ci yàqule. ñoo ci yàqule. nam leen ko waxe woon keroog rek. nam leen ko waxee woon keroog rek. yàlla mi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 ñàkk organisation bi gannaaw gi ci kër Cheikhul Khadim la ko mujj defee foofu itamit dégg na kàddu commerçant yi ci làmmiñu ki nga xam ni moom mooy seeni Dieng di délégué marché bi